Euh, salaamaaleykum cher internet univers info tv di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, comme ni ñu amee habitude di ko def nag euh, saa bu actualité amee dañuy daw waaye tey nag ku ne xam na ni jour bu spécial la mu nekk le 8 mars nekk jagleel ko jigéen ñi ah di wax mention spéciale aux femmes nee naa la jigéen mooy lu ne jine jigéen moo tax ku nekk mel lu la neex tey tax bu nee jigéen rek mooy àdduna jigéen mooy Sénégal comme ni ko Youssou waxee donc mention spéciale aux femmes ba tax na nag ci la équipe univers info tv daal di ànd daw nag nag ñëw seet ki nga xam ne mooy Khady une brave dame nee naa la kooku sax euh, femme douze métiers laa koy wax restauratrice lay def ah Euh, tàng naa lépp lay def maanaam bàyyiwul dara ah ñu xool ni muy demee ci marché bi li nga xam ne moom lay ñëwee di ko nduggee noonu lay jëflantee ak client na mi moom tax Univers Info TV joxoon yendu spécial pour wane li nga xam ne moo di njàmbaarteem ndax 8 mars nag dañoo baaxoo di ci wane li nga xam moo di njàmbaarteewu jigéen donc moo tax nag ñu daal di ñëw seesi nag sama maman di leen wax ni leen que nit la koo xam ni waaye daam la boo xam ni macha allah day liggéey fawul foluwul day liggéey liggéey rek lay def ak noppale ko <laughs> comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ba nee naa la liggéey rek lay def ndax ànd nañ ak moom marché mu daal di ndugg waaye tamit ñëw ci place bi mu daal di def ndekki yu macha allah léegi daal di togg añam ba instant bi toll nañ ci li nga xam ne moo di tey Tankhady baabu nan nga dundee tey euh, ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ak yow. waa kontaan rek. Mhm. parce que mun naa ne. Mhm. Euh, dama ko doon ñaan yàlla. Mhm. parce que liggéey bi may def moom rek laa xam. dama cee yàgg. dama cee yàgg xawma leneen. Mhm. lu dul lii lii rek laa xam. Mhm. ba ma jógee di liggéey ba léegi tamit kenn xamuma ci benn liggéey bu dul bii. Mhm. man togg rek laa xam jaay. macha allah waaw. ñu daal di gis nag sànq ba léegi yaa ngi këtt këtt ci waañ bi te macha allah mbana nga teg. est-ce que tamit mettiwul mettiwul. waaw metti na. mettiwaay bi euh, foo ko takk rek paase na ko. coono bi mhm. foo ko takk rek paase na ko mhm. waaye lépp li nga xam ne yaa ngi sonn mhm. di di ci gis njëriñ rek euh, da ngay préférer euh, toog ci loolu waaw waaye bu dee sonn rek euh, sonn sonn naa ci torop dëgg la waaye nag comme maa ngi ciy sonn te di ci gis njëriñ ah loolu rek moo ma ci bàyyi Euh, des fois tamit euh, yaa ngi gis euh, bu ñu xoolee macha allah ndugg bi fere na. Mm. jën yi baax na. Mm-hmm. est-ce que tamit di nga ci génn à 100 pour cent. waaw xam nga jaay dafa yor jikkoy géej jaay. Mm-hmm. restaurant. Mm-hmm. jikkoy géej la yor. mook biis ñoo yam leen restaurant ak biis seen ginnaaw dafa yaatu. mën ngaa xëy maye maye ci fukki añ maye fukki ndékki te du tee nga gañe ci. mën ngaa xëy doo ci maye benn añ doo ci maye benn ndékki te doo ci gañ mhm. kon jikkoy géej la mhm. il faut nga maîtriser ko rek mhm. xam ko rek soog cee mën a am dara yàgg nga ci yàgg nga ci waa yàgg naa ci nag def nga ci ay ñaataat ah, lii de presque mun naa ne maa ngi ci bëgg a def vingt nangam macha allah lan nga ci dund comme jafe-jafe mu metti la waa dund naa ci nag jafe-jafe dund naa ci jafe-jafe dund ci bànneex euh, jafe-jafe bi ma ci dund mooy mhm. euh, nekkoon naa ci benn palaas boo xam ne li ñuy wax liggéeykat ak mhm. jàmbaar mhm. foofu mun naa ne coono bu ma am ci sama jaayu carrière jaay yëpp foofu laa ko amee waaye xëy na boobu yàlla lii la ma dencaloon mais jafe-jafe rek ak mettit rek dund naa ko ci ban la mu marqué la ba tey ba ko xalaatee rek sa xol bi jeex waaw am na benn date parce que 8 mars dañ noo dañuy bëgg wii mars bi dundandoo ko ak gaay te suñ sañoon nga wax lu la neex parce que lii lañ ci soxla lii lu naturel yëkkatil lu naturel lañ ci soxla. waaw xam nga am na benn anecdote. Mhm. ma nekk ci benn place. Mhm. di liggéey di ci gis sama bopp. Mhm. di ci talal samay waajur. yor ci sama njaboot. ñu xëy rek. borom place bi ne ma dama soxla sama place. Ah, ma def caaxaan mu def dëgg. Mhm. ma ne ko ah yow de bi ngay tabax sa place mayuma la suuf. Mhm. mayuma la ciment mayuma la ndox. Mhm. kon déjà. Euh, soo soo soxlaa sa place. mënuma lu dul jox la ko. dëgg la. léegi may ma dale. mu ne ma may naa la 6 mois mais 6 mois yi 4 mois yi ngay fay 2 mois yi nga jël ko sa avance ma ne ko amul problème. biiru six mois yi nag mënuma am place ba sixième mois bi jot ma war a quitter place bi te awma woon palaas mm-hmm. waa jour boobu nag dund naa lu metti mm-hmm. ma toog rek benn waay kooku mooy entrepreneur bi nga xam ne moo tabax fii Jumya mm-hmm. ñëw jàpp ñaari doomam si loxo ne ma ñii samay doom nañu dañuy liggéey ci Jumya bi mais damaa bëgg nga nekk seen yaay nañuy lekkee ci yow su weer bi deewee ma ñëw fay bu ñu amee ñu fay la bu ñu amul ma fay la ma ne ko ah, mën naa commencer ak yow de mais déjà nii rek man dañu may génnee te te aw ma place mais nag fii may am fii may génn place bi mën naa leen di jox lekk. mais su ma génnee aussi aw ma fu ma jëm aw ma fu ma jaayee mu ne ma loo rek ma ne ko waaw mu ne ma xaaral. ma ma ma may la si buntu jumyaa bi gis waxanteegu ma ak tubaab bi mais pour l'instant yow sa dale kañ la man ko gannaaw suba la mu ne ma xëy na fii gannaaw suba ma gis tubaab bi mais bu fekkee gisuma ko yow jëlal sa mbaar nga ñëw teg ci buntu jumyaa ma jël sama mbaar ñëw teg ci buntu jumyaa bi mu suudal ma mbaar mi ci miiru jumyaa bi may ma suuf may ma ciment may ma ay birig perongal ma foofu ci mbaar bi ba mbaar bi jug muy lébu bu baax di sama càmmiñ mu defal ma loolu ma ñëw teg sama taabal teg samay samay ban sama soxna jaara toog fa di jaay may toggee añ sama kër di ko yanu di ko indi mu metti lool ma jaay fa vingt jours rek ba yaakaar ne man ma ne ah alhamdulilah maa ngi jaay li ma doon jaay te ah, kon duma fay lu yaas rek tubaab bi ñëw ñëw fekk fa sama doom ne ko kan moom moom lii mu ne ko sama yaay mu ne ko ne ko 48 heures laa ko may pour mu jëlee ko fi lan moo gën a metti loolu ma jaaxle ma woo monsieur expliqué ko mu ne ma day wax rek yónnee ma sa carte ma yónnee ko mu defal ma benn papier ne ma bu tubaab bi del dellusiwaatee jox ko papier bi bi tubaab bi dellusiwaatee bi ma ko joxee papier bi daf ma ne ma pardon madame ma continuer di fa jaay di fa jaay di fa jaay di fa jaay ba am place bi tey. macha allah place bi aussi grand surprise laa ko amee. Mhm. Euh, mun naa ne sama xarit moo fi nekkoon muy aji faal jigéen ju mën góor nekk nit ku baax mais daf maa bëgg ba duma xool buñ ma doon laaj kan moo la gën a bëgg damay commencé ci aji soog a continuer parce que maa ngi moom dañoo yàgg ba may ànd ak aji. Mm-hmm. ñi may àndal ñëpp xaw ma si kenn. Mm-hmm. ànd ak aji yàgg ak moom ñuy partager lépp lépp lépp lépp lépp la ñuy partager man ak moom. Mm-hmm. vocal na ma gis naa vocal bi 8 ci suba ba 18h ci ngoon laay soogal a lire vocal bi parce que ma ko fekk ma nekk ci pression liggéey bi. mu ne ma xadi tabax naa sama kër ba mu pare damay ñibbi ci sama kër sàngal kam te sama place bi yow laa ko yéene kaay jël ko sama contrat des na ay at kaay nga jël ko yow laa ko yéene. bi ma ko liiree damaa mën fa bu fekki ko këram mu ne ma ban table cin bool yi ma doon liggéey yëpp may naa la ko ci xol bu sedd guy topp ma la dara loolu la ma aji defal. macha allah kon euh, dund naa lu metti mais am na benn jour ma am ci bànneex. muy ban jour. waa jour bi ma liggéey ci palaas bi ba paasal sama doomu tukki jour boobu am naa bànneex. Mhm. nga paase ko mu tukki te fekk te kenn fekku la ci yow kese yaa def loolu. mais ku ma ciy fekk fekkoon na ma jekk ku ma ci mun a fekk boo ma ci fekkul woon mu dem. barke xaadim rasul. Mhm. ku ma ci mën a fekk fekk na ma ci dernier moment am na nag ku ma ci fekk. Mhm. mais fekk na ma ci ci dernier moment. sa doom boobu tey euh, li nga xam ne moo di restauration bi moo tax tey mu tukki ci ci njaay mi. ci njaay mii la tukkee ci cin bu tàng bi ci la tukkee. Mm-hmm. xaas bu leew doom. Mm-hmm. ci la tukkee. Mm-hmm. des fois tamit nga nekk jigéen. Mm. est-ce que duñu duñu duñu faral di wax yenn baat yoo xam daf lay metti parce que restauration da nga fiy yàgg danga nga guddee en ah, façon nit ku ne ngay composeel mm. nit ku ne mooy ñëw ci place bi. Mm. des fois sax nga yor benn xaalis boo xam dañ naan nangam ak nangam ci jigéen est que yooyu tamit mës na la dal. waa xam nga euh, dañ ne boo toogee kenn xasu la kenn tegula baat bu ñaaw moom xamal na yow sa gor des na sa jàmbaar des na yow doo garmi boo boo doonee jàmbaar nekk liggéeykat. am mm-hmm. ambition ci réew mi. Mm. ah di nga dégg lu ne de. Mm-hmm. lu ne di ko dégg. Mm-hmm. Cheikh Ibra Fall noonu na Cheikh Ibra ëmb na rek laa déggagul wala Cheikh Ibra ni mu kawe ñu di ko waxal lu ne ba muy xaar ñu ne ko ëmb nga massa ñun ñu xeebu ñi xam ne ay ndongo yu xeebu lañ. tey 8 mars bi nag ku ñu daal di def choix ci yow. Mm. mu nekk contentement parce que jàmbaar nga ndax xadi euh, demul kese ci restauration bi mu ngi ci politique bi. Mm. mi ngi boole ay nit di def mm. ay mbootaay. des fois sax di nit diggante yu yoo xam ni dafa dafa ñagas. mu di ko defar. lan moo tax volonté boobu nga am ko. waaw xam nga am na loo xam ne oh, judduwaale la commencé wu ma ko fii. Mm-hmm. ñun bi ma ñëwagul fii Réfane. ñun mhm. Aïda Mbodj lañ daan àndal. Mhm. jàngeewu ma fii politique. Mhm. fii dama fee ñëw te it man meer a dox ak tànkam ba seet ma tàllal ma loxo ne ma dama bëgg nga jàppale ma. macha allah ñun suñu ànd noonu la demee. fekk na tamit li ma nekkoon ma maîtriser ko. loolu moo tax restaurant bi ak politique bi déranger ma parce que ba ma ko doon def reefan dama doon Euh, restaurant kër oustaz du Faye falaa doon jaay te yàqaluma woon dara ci course yu ma doon dox. Mhm. suñu digg ak Aïda Mbodj. Mhm. ñu xam la tamit ci defar diggante. Mhm. maanaam man yaay ji ma naw nga ndax dangay defar diggante te noobul ngay doxee. lan moo waral lool. waaw xam nga di ànd ak ñaari nit ñu am problème. neexul dëgg la. soo xamee ne yow ñaan ñi dañoo am problème. te nga wóolu sa bopp ne lii bu ma ci waxee suñu borom may ma ci sutura dama ciy profitoo rek wax ci. Mm-hmm. yàlla suturaal na ma nag bu musuma dox benn diggante te aw ma ci nam mm-hmm. diggante bu ñagas bu ma ci doxee rek suñu borom yomb na ma cee defal ndam. Mm-hmm. waaw am na solo léegi nag euh, fi nga toll ci ñi ngi tollu ci tey. dañ lay bàyyi rek nga ñu dawalaa tuuti mm. après ci kanam ñu xool ni ngay jaayee ak client yi ak ni ngay composé ak mm. moom mm. ñan ngay gërëm ci ñi la jàppale ci parce que sànq gis nañ sa sa sa quelques copines yoo xam ne ñëw nañ jaar fi ci cin li waaw damay njëkk a sant sama borom kër ndax ñun dañoo ànd man moom petit ba ñu ànd ba ma xamulee ba ma mënulee ba ma sañule ci laa àndoon nag sama borom kër mm-hmm. ñu ànd mu yërëm ma yéer ma bëgg ma ba ñuy jaawale mbëggeel ak daf maa ragal. Mhm. daf maa bëgg rek nag. ndeysaan ñu ànd mu yërëm ma lool. est-ce que xam nga ne tey man ak yow bu ñu amoon problème sama borom kër bàyyi na la. ndeysaan dootu la nuyu. <laughs> solidaire na lool ci man. jàppale ma lii yëpp su ma ko mënee def di politique di guddee àll di dem di ñëw moom la nag. dëgg la su ma yemale woon rek ma yem. Mhm. ndax sama àddina si maa ngi ñaan ci yàlla li ma fi des bu dee mës naa koo tooñ li ma dese ci sama àddina yàlla bu ma ko tooñ. ndeysaan kon kon bu ko neexoon. Mhm. mu xool ne maa ngi ci sama yoon di dem. mu mhm. dogaale ma. mais kaay la de ay escalier la may tegal naa maa yéegal ci côté yëpp nag li ma mun a wax ak lu ma mën da wax. macha allah. su ma ci jógee nag ay gërëm sama yaay. Mhm. ak sam papa. ndeysaan ndax fii boo duggee biir ginnaaw raay. ñëpp nangu nañ ni man sama papa daf maa bëgg ba léegi may wax ak yow xale bu ndaw la ma jàppee fii lii bu ko yogoon nii rek sama papa da koy jaral mu paas ñëw toog jàkkaarloo yéen. ndeysaan. te xamuñu ne man sama yaay sama digganteeg sama yaay loolu leneen la kon sens boobu yàlla defal na ma ko ci diggante yaay ak baay. Mm-hmm. kon macha allah may sant ci loolu bu baax a baax. ndeysaan. Euh, di sant tamit groupe nopp sa jëkkër. Mm-hmm. émission bi aussi maa ngi leen koy may. Mm-hmm. waaye di sant mu le maire Ablaye Diop. Mm-hmm. nga xam ne politicien nag boo ko interrogé te santul leader am rek fekk leader am da nga defalu dara. dëgg la ku jàppale la. Mm-hmm. moom nag du man kese. jigéen ñëpp la jàppale. Ablaye Diop ndawalul guddi la ku ci jëkk rek da nga naan yaa ko moom. mu nekk nit ku noble koo xam ne mën li muy def ba pare encadré femme yi toll nii te kenn merew ko. man boog merew ma ko. Euh, buñ demaatee nag ci entourage bi may liggéey mhm. euh, mu nekk millier millier boo xam ne ci tali bi la nekk góor ñi ak jigéen ñi mhm. euh, nga xam ne boo xëyee façon nit bu ne ngay gis dëgg la di nga gis koo xam ne day ñëw neex deret gis ku ñëw léegi attaqué la histoire gis ku ñëw koo xamante ne nii mënoo koo defal tey lu ko neex loolu day am mais man damay préférer rek nekk sama sapeur pompier man ku tàng ba ñëw rek dama laa war a fay ndànk xuloo du am bal du <laughs> du ma xuloo ci place mhm. du ma werantee client weccet su ma jaayoon tey nga ne ma cinq mille laa la jox sëñ Bamba xam na ne boo dëgëree même boo ma ko joxut ma wecc la nga dem mhm. musuma xuloo client ci place pulo nañ maa ngi ay yow nañ dellu kër ay yow damaa dem ba samay client dañ ma rus xanaa ma dañoo am kersa suñu diggante mhm. ponk lu magum jëm bu ñëwoon fii ci place bi ma yónni ko ci bitig bi mu daw dem jëndal non respect bu dox sama diggante la ak samay client ma am na client yu fidèle mhm. client yoo xam ne ay at laa ànd ak ñoom comme ah, mun naa ba damay bañ a mhm. Mhm. ñu seetaan émission bi am ñu ma mere dëgg la mais nag am naa client yu fidel man am naa ay client yu ma tuddee doom ndeysaan am na fukki turandoo ak benn ñeenti turandoo yi ay client la macha allah am naa ñaari client yu ma may njëkke te loolu yëpp leneen nekkul ci ginnaaw lu dul lekk naan ak coloré di nga miinanteeg nit ki nag ba ngeen di waxtaan te fois mu jaaxle ñëw waxtaan ak yow nga ne ko ah defeel nii waxeel nii xale yi aussi dañoo am cër dañ maa jox cër. Mm-hmm. nga xam ne bu ma sitee rek. am ñu ma tuddul. Mm-hmm. day niru leneen mais. Mm-hmm. xale yi yéen a ma gan a xam seen bopp. yéen ñi ànd ak man ba dara dul dara di ma jàppale ci côté bu ne maa ngi leen di sant di leen gërëm. tey lan ngay wax euh, jigéen ñi nga xam ni tey euh, liggéeyuñu wala tamit dañoo nekk ci liggéey mu dëgër man message nga leen di bàyyal. waaw ki nekk ci li euh, liggéey mu dëgër ci kooku laay njëkkee. Mhm. parce man loolu laa mëne su dëgëree ci laa gën a am ambition liggéey parce que li nga fa xaar moo la fay fekk. Mhm. loo fa xaarul rek du la fa fekk te man mu njëkkee naqari mujjee neex moo ma gënal fu mu neex ba ci yàgg daal di naqari. kon yow mi nga xam ne yaay liggéey. Mhm. te neexagul jàppal rek. ndeysaan dina neex dina neex te loolu nag da ko fay xaar assumer say responsabilité ba pare gëm sa bopp loolu moo lay indi loolu ci yi ci tagu yëpp. Mhm. ki nga xam ne aussi dafa toog. Mhm. liggéeyul. bàyyi laat mbàkke. ku baax a ngi nii. macha allah nekk xale bu yaru. xale bu ma bëgg ku ma jox cër. yàlla nag moo ko ci tombale. ndeysaan mu ngi noonu. nga xam ne ki nga xam ne nag dafa tëdd këram liggéeyul maa ngi koy digal mu dem yaxantalu ci yàppaade soo métier. Mm-hmm. noonu la ko tubaab bi di waxee liggéey moom amul bii liggéey ak bii laay man damay jaay crème jaay naa crème jaay naa fondé càkkri jaay naa xamsa lal naa taabal teg ci ay orange ak gerte caaf daan naa dem marché poisson jënd damba màngo raxas ko def ko ay mbuusi téeméer di ko yenu di dugg ci biir garage yi di ko jaay mais booba lii laa bëggoon booba lii laa bëggoon. Mm-hmm. sama lii li muy tuuti tuuti mu ngi fay ñetti jànq di fay palaas suñ borom mu ma ciy suturaal ba may def loolu yëpp booba lii rek laa bëggoon. incha allah ki ne yow mi nekk ci waar. Mm-hmm. demal nga dóori waar waaye yow mi nekk ci waar yi bu mettee bul daw. toogal xaar dina neex. ndeysaan. waaw am na solo léegi après dañ koy continuer ak jaay bi. Mm. fii lañ koy dog après ñu continuer ak jaay bi ak ni muy composé ak ay clients am na solo. incha allah kontaan parce que ñun fii ñu nekk euh, nekk di ndugg ci moom des fois dañu ndugg ci moom sax par téléphone muy jaay yor téléphone am ñu koy perturbé te loolu yëpp daf koo mën a muñ teg ci nag di ñu di ñu dencal suñu xaalis di def ay nat di ñu jàppale di ñu teggal xaalis bu bari te wax fa dëgg yàlla te lépp tegu ci jub moom tamit kenn fayu kenn amul fayam ak ñoom nooru ko nag ñaaw doomin yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que même bu fi Cheikh Mbacke nekkul sama téléphone rek laa yor ndugal ma li ndugal ma li ndugal ma li xale baa ngi koy jël si te clients yi dañuy taxaw ñu bëgg di assumer loolu su leen neexoon tamit loolu duñ ci du leen ci fekk maa ngi leen di remercier bu baax di remercier ñëpp nag waaw parce que kanam naam comme ni ñu ko defee rek ànd ak moom ci marché bi gis ngeen ko une brave dame mu ànd ak moom ndugg mu li nga xam ne moom la war a préparer ngoon tey nag ki ñëw ñëw seet si mu ngi fii ci place am moom la ñu jox rek mu daal def témoignage parce que nee na depuis ay ati at mu ngi ndugg ci moom yàgg na lool donc loolu relation bu yàgg la sëñ bi noo def. noonu wax dëgg yàlla macha allah ku baax la. yàlla moo boole moom mais bi nga xamante ba tey nag wax dëgg yàlla ma ko. sa ndax chaque jour moo ngi ñëw di ndugg lu baax di ay xaritam di ndugg teel a xëy guddee wàcc ci laa ko xam bu ñëwee mu ndugg ko ay ndugam yu baax mu yóbbu ci palaasam jaay macha allah moom daal liggéey kat la te jigéen ju baax la te liggéey rek moo ko tax a jóg moom macha allah liggéeykat daal moom mun ko wees daal. li ma xam si moom nag lépp mun ma ko wax ndax jàmbaar la daal amuñu benn problème ñu fa dee liggéey yàgg na trop macha allah mais jàmbaar la daal ci wàllum restaurant lay liggéey bu ma xëyee ma ndugal ko. ndugg mu riis teg ci soble beeg pombiteer beeg yëpp mu dem place am mu togg añ togg ndékki togg reer bu xëyee wàcc bu ñëwul yónni ay jàngam waa am na élément yu muy yónnit macha allah waaw ndax ay doom la fi nekkaloon ba yàlla def ay doomam heure bi daaw ñenn ñi dem bitim réew ah ci liggéeyam bi ci la amee loolu kon macha allah kon maanaam lu mu am ci liggéeyam rek yàlla na ko daal ñii ñoom laa fi nekkal kii nooru kan lañ koy wax kii kooy jéen te Kole wax yàlla am na sama benn emploi bi fi nekk ku naan Jooda Mbaay mi nga xëy tey macha allah ñoom ñu baax lañ jàpp ci liggéey bi trop ay jigéen lañ ay waarkal lañ ndax dëgg yàlla su may dem fi laa dañu bàyyi su ma ñëwee fekk fi loola ak loola ñoom it kenn gën lañ macha allah ñu baax lañ ñu nuuru kan jooda mbaay kolle ba ci maire bi mati mbay ñoom ñëpp ñu baax lañ macha allah maa ngi leen sant di leen gërëm waaw mati mbay ak ni yor bi sab bi waaw wax dëgg yàlla lii mooy seen liggéey non jëflante ak jigéen metti na méttiwul ndax jigéen moom boo ko joxee li mu bëgg rek ngeen mën a ànd su fekkee da laa joxuma nii nga jox ko rek yàlla mën la ñu boole affaire bi du yàgg du am coow mais nag bu fekkee da la commande li mu la xam ne moom la commande defuloo ko loolu day indi daal day ak yàq sa client mu def wax ñu baax lañ maa ngi la gërëm di leen ñoom ñëpp macha allah oma sëñ fay yàlla na suñu borom jàppale muy ak sama client yi taxaw ñoom ñëpp ñu baax lañ ay jigéen lañ bu ñu xëyee bàyyi seen jëkkër ñu bàyyi seen doom yi ñëw rang fii ba sonn ci ndugg mi ndax yàlla man mi lu ma am jigéen ñee ma jàppale kon jigéen ñi neex na ñoo man moo ma gënal sama mbokki góor yi ndax ñoom laa jëflanteel ndax dëgg yàlla li ma am ñoo ma ko may barke Serigne Touba boo demee sama kër macha allah ñoo ma jàppale ndax dañoo bàyyi seeni mbokk ñëw ci man di jëndee man waaw bu ma fi duggee ba tey léegi ma am fi fukki at ak ñaar mais ñoo ma jàppale jigéen ñi ñoo ma jàppale jigéen ñi laay sant di leen gërëm macha allah yal na jàppale seen jàpp gën la ñoo jàppale gën la ñoo yëkkati gën la ñoo may dépasse bu ñuy ñëw ci Seex Mbàkke di ko nduggee may may leen ak wér moom laa lay ñaanal sama mbokk jigéen yi kii sama yaay Seex mii ñoom Daba ñoom Koña ñoom ñoom Kumba ñi ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm macha allah jigéen ñu baax lañ kenn gënu leen Hmm? ah Khady Babou macha allah rek comme ni may ni may wax rek ñi li ma wax si ñëpp macha allah yàlla na gën a jëm kanam daal dóor waar rek yàlla na ko yàlla may wér bu mën a eggale liggéeyam ndax li mu sémb dafa bari ñu ay bool bool lañ liggéey la moo ñu tax a jóg dëkkuñu Dakar waaw si liggéey moo ñu tax a jóg yàlla na gën a jàppale liggéey bi ji muy jigéen muy góor lu waaye di wut Dakar la yàlla na ko suñu borom may ak bitim réew ak fépp daal yàlla may ñu ak wér ndax ku amul wér ñàkkoo dara yàlla na suñu borom may wér jigéen góor ñëpp daal macha allah rafet na trop daal dara ñaawut waaw ñii sama mbokk lañ comme ni ma la ko waxee rek waaw ñoom ñëpp maam même chose waaw am na ay clients restaurant yu bari yu mel ni moom mii di fi ñëw ñoom Awa Thiaw ñoom euh, Dégeen Ba Dégeen Ba tànn Dégeen ñoom maire yi bari daal lañ fi ñëw di liggéey ci wàllum loolu waaw place bi daal la ngi nii waaw du yàlla macha allah jaajëf waaw wax ange billahi minan seytaane rajim musli ci seytaane gërëm suñuy waajur daal ndaxte Cheikh Mbacke mii ba ma nga xamee yàgg na yàggul ku ñuy wax xadi moo ma booleeg moom ñu jàkkaarloo ñoom ni su ma ñëwee di ka daggal masidouane di ko tooñ naka man masidouane indi ma fi diw laay jaay damay yenu di jaay di ambulant waaye bu ma duggee ci moom ba tey rëccuwuma ka moom mii jàppale ñu jàppale biir ak biti suñu nekk ak moom fii rëccuwuñu ko ñun ñii ñëpp moo ñuy may ndugg ñun ñi kenn du ndugg ñu ngi fi képp ku taxaw fii doo jënd ndugg muy ñee ak ñiy toog fii moo ñu may ndugg chaque jour lu ñu liggéey nag mu ne bu leen yàq moom ni ñu mën a jàppale ñun mun ñu koo jàppale suñu bopp dañoo bokkal ay natt korité bokk ñu ay natt tabaski bokk ñu natt événement 31 dañ ko bokk ay natt màggal sax ak gàmmu si dañ ko bokk ay natt bu événement jotee di nga gis ku am 400000 wala 300000 wala 500000 te moom moo ñu ko sosal am natt fii suñuy bëccëg 300 suñuy bëccëg 500 ñun namuñu dara ci liggéey bii liggéey bi ñu liggéey dañ cee ferte moom nag dama koy gërëm di ko ñaanal si dem màggal dina cent 200000 jox ma wala 300000 na ma liggéeyal soo liggéey yaa moom saa yi liggéey dem ba ñëw su ma jëndul oor ci man la barki salaatul fatiha moo ma jàppale ba sama néeg beeg sama saal beeg ma ku ñëw mën la duggal kon nag Cheikh Mbacke jërëjëf sa liggéey bii ngay liggéey yàlla na ko Seydina barke barkeelal ci barke salaatul fatiha loolu rek laa ci amoon li ma ciy wax jëf jërëjëf jërëjëf. yow boo ne Cheikh nangam laa bëgg muy benn joxtu sax dañuy daw ba fakka saloon indil la ko ndaxte jaraa boot ndaxte yow yaa ñu jàppale ci mbaar mi bëggoo kenn ko mer man samay bagage da nga koy laal bëggoo kenn ko mer fii kii da ngay jënd jënam kii nga jënd tamaateem kii nga jënd léppam yow yaa baax yow yaa topp seex Mbacke ba jàppale la ba sa doom tukki kon nag jërëjëf na nëbboo ci dara Cheikh Mbacke ba ba ngeen jugee aéroport fii nga ñëw ne ko Cheikh Mbacke jërëjëf li nga ma doon jàppale feeñ na tey ndaxte sama doom yaa ma jàppale ba sama doom tukki tey jii te maaka ko fekkee nga wan ma vidéo yi yëpp te moo ko teggal natt boo xamante ne macha allah ñun ñëpp si lañ bokk. kuy ngénte doo am xoolal kuy ngénte doo am defet kuy ceet doo am defet kuy xewle doo am defet fii ci palaasu Cheikh Mbacké bu la soxla bekkee bettee bu wane ko Cheikh Mbacké rek xoolal yaa ko yàggal ay biir la lay continué demal nga defar ba mu baax ñun mbaar mi fii ku fi takkul or rek ci yow la. ku fi takkul oor rek ci yow la lu baax la xam lu baax la bëgg barki salaatul faatiya bëgg ay waajuram nag bëgg ay waajuram ah, Taaxadi Babou sa diggante ak ñi nga xam ni mooy groupe Nopp sa jëkkër tey boo doon wax ci ñoom lan ngay wax ci ñoom merci beaucoup laaj nga ma lu ma neex mhm. ndax euh, groupe Nopp sa jëkkër dañoo ànd àndu nawle xam nga àndu nawle loolu la ñu ànd àndu nawle waa àndu nawle mooy ñii ànd dañoo boole seen bopp boole seeni xel ak seeni xalaat waaye lu ci neex kenn rek day neex ñëpp waaye lu ci naqari kenn day naqari ñëpp mhm. ndax boo gisee groupe nopp sa jëkkër ñëpp am ay ndomboy tànk ku ci amul ñaari ndomboy tànk am nga benn foofu la groupe nopp sa jëkkër toll Mm-hmm. lan mooy ay ndombay tànk comme. ndombay tànk comme soo nekkee présidente secteur. Mm-hmm. ndomba tànk la. dëgg présidente groupement. Mm-hmm. ndomba tànk la. macha allah nekkaat responsable politique. loolu ndomba tànk la. te ñu am loolu yëpp boole ko boole suñu fulla ak suñu fayda di jàppalante nag groupe bi di waxi kese dañuy jàppalante. comme tey yow boo bokkee ci groupe bi. Euh, nga am benn xew xew bi jàmp mhm. laaj ndawtal xaju fi ñun yow boo dencoon ay millions loolu concerné wul groupe bi dëgg la groupe bi day cotiser dix mille dix mille daal di la koy jox daal la koy jàppale daal la koy jàppale amul zaanañ nii pour mhm. amul kenn ku ñu koy defale ku ñu ko dul defal mhm. waa léegi yow loolu xaas boobu som boobu yow xaw ma loo bëgg a defaa dina ko mat de waaw bu dee ngénte nga dangay dem. Mhm. bu dee ceet dangay dem. Mhm. bu fekkente ne nii xew la sa xew bopp da ngay dem. Mhm. bu dee gunge nag ñu topp sa ginnaaw 3 heures du matin sax boo ñibbisee ñu topp sa ginnaaw kenn du na ñëw la ñu ñibbi ba jeex. loolu koñ yi ko am bëriwul. déedéet. foo yóbbu woon groupe sa jëkkër yow. fekkoon nañ laa xeeb. ñëpp naw la. ay grande dame ay ci sa ginnaaw ba sa xew mi jeex tàq ñuy soog a ñibbisi. ba pare tamit sañse seen yëf la. bu ngeen dem da ngeen di sañse waaw moom suñu yëf la. Mhm. ñoo mën a sañse foofu nag tamit dañ fay yor jikkoy laayan yi dañuy bëgg di niroole. Mhm. kenn du jaay sa morom maanaa. Mm. sa nga ki yor ay jees neer. Mhm. ak yor ay mbasin riis. ak yor vaal mënuñu leen a xàmmee ndax dañuy niroole. dañuy niroole. bu ñu niroolee ba toog. fa dëgg yàlla foofu doo fa xàmmee kenn. ngeen ñeme nag daal di def àndandoo dóorandoo xàccandoo. xàccandoo dóorandoo. Mhm. ñeme li ñuy def nag. Mhm. xanaa di ñaan yàlla mu lafal ñu cat rek. Mhm. mais ànd ak jigéen est-ce que yomb na ni ngeen nekkee yéen ñëpp ay jigéen. waaw xam nga yomb na yombul. yomb na yombul parce que ànd bi ñu ànd. des fois dañuy laalante de des fois ñun ci suñu biir. dañuy jote sëñ Fallou ko waxoon. ndeysaan dafa am ñu demoon ci moom mhm. ne ko Mbàkke ñaanal ñu ñun ba ñu àndee ba tey kenn werantewul ak sa morom mu leen dem leen tas seen ànd bi àndu leen ci dëgg bu ngeen àndee ci dëgg da ngeen di laalante di àndaat mhm. loolu moo waral ñun yenn saa ñu laalante ci suñu biir mhm. lijjantiwaat ko ci suñu biir àndaat ci suñu biir macha allah te kenn du nax sa morom kenn du jay sa morom ñun ànd boobu la ñu ànd ànd bi ci nan la sosoo waa ci nan la sosoo euh, dañoo former suñu groupe rek tuddee ko group nopp sa jëkkër mhm. ndax jàpp nañ ne ku ñu takk ci farata yàlla ak sunaas Muhammad nopp nga sa jëkkër mhm. te group bi même boo nobul woon sa jëkkër sa da ngay gën a nopp sa jëkkër ndax nopp sa jëkkër la tudd mhm. te kenn ku ci nekk yëfi nopp sa jëkkër ngay def yëfi waxi nopp sa jëkkër ngay wax groupe bi amul caaxaan duñ fa wax lu ñàkk fayda duñ fa dugal lu ñuy ñaan acam groupe bi amul dara lu dul wax lu baax mhm. lu ñuy jëmale kanam loo xamante ne nii daal mhm. euh, suñu suñu avancement la ci mhm. loolu la groupe bi di dox ana ñan tey ñooy leaderu groupe bi maanaam ñu nekk ci kaw président beeg ñooñu ñooñu ñan la waa xam nga groupe bi wax naa la ko léegi ñoom ne la àndu nawle la ñu ànd ndax man bu ñu mënee sama mag suñu mag suñu mag lu ñuy def jiital ma lu tax tamit ma toog di fëgg sama dën naan lii wala laa moo tax ci njëlbeen bi ma ne la àndu nawle la ñu ànd. Mm-hmm. dañoo ànd àndu nawle ni ñu àndee àndu nawle tey buñ doon wax dara tey dañ naan yaaxa di waxal wala ñuy def dara tey ñu ne yaaxa di nangam. Mm-hmm. loolu tamit du tax ma gis ci sama bopp parce que man lu ci ëpp dama naan nit doo wax nangam. Mm-hmm. Fature yaare wax leen nangam. bàjjenu gox. ñu nuyu Awa Ndiaye euh, Fan Ndoy. nopp sa jëkkër boolewuñu dañoo yàgg ànd. di nuyu Gàkku Jaawara groupe mhm. nag sa jëkkër boolewuñu mhm. Mari Cissé taal bi sëñ Fàllu bi mhm. Ndey Mosaan Njaay Soxna Jaara xam naa ku lim nag juum seel taal sama jeeg bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare ndax ñooñu ñooy mag ñi nekk ci groupe nopp seen jëkkër des fois tamit ànd bi du am di ay polémique que di waruñoo jiite lan moo tax xadi baaba di leen jiite ëpp la dara jeeg la ngay jeeg yooyu du leen dal waaw xam nga yooyu moom. Mhm. dañ ne àndub jeeg ak mhm. àndu xale ñoo yam mhm. àndub jeeg xale ya euh, dañoo nekkoon di foo. sëñ Tuubaa ne salaamaaleykum wuyuñu salaamaaleykum wuyuñu am na lu ma wax comme aw ma àlluwa damay bañ a xuus di juum. simleeg saada xale yi jàppante ñe dañoo jàppante continué waat di foo. mooy àndub jigéen. Euh, diw di ñu jiite man xam nga lan laa xalaat ne mooy jiite jiite sa kër. jiite sa kër. Mm-hmm. am fa baat di doxal sa kër teg ko ci yoon. Mm-hmm. loolu mooy njiit li gën a foor. dëgg la yeneen njiit lu ci tegu rek njiitul àddina la du njiital dara. Mm-hmm. yii ñu naan diwa jiitu diwa jiitu yooyu yëpp ay ay ay ay la nii rek njiit nag du sàkk boppam yàlla mooy sàkk njiit. dañuy def nangam. diw diw diway suñu mag. loolu cër la. nit du ko may boppam. daa fekk nawle ya nga àndal doon ay garmi deretu góor di daw ci seen yaram ñu baax mën seen nit mën seen nawle macha allah sëg la koo may. Mhm. mais loolu du doolee koy may. Mhm. waaw am na solo tey ñan nga ciy remercier ci seen biir ñoom ñi nga àndandoo defandoo liggéey bi waa groupe Nopp sa jëkkër. waa xam nga groupe Nopp seen jëkkër euh, comme man ku mel ni sama sama sama groupement de femmes. Mhm. Euh, Aïda Ndiaye. ak Fatou Euh, ñoo ak gàkku Diawara ñoo nekk ci samay kayit comprendre nga. Mhm. may seen présidente ci sama groupement. Mhm. bu ñu nag ba groupe nopp seen jëkkër. Mhm. loolu beneen groupe la. groupe nopp seen jëkkër bi mu ñëwee ay femmes développement ñoo fa nekk ay présidente ay ñun ñun ña fa nekk ñëpp ay kilifa lañ. mais ñoom nag dañ maa def may seen mag jox ma cëru mag. di ma jiital ci lépp nag. macha allah fa dëgg yàlla. may nuyu rek. ku mel ni Yaari Cissé. Yaari ndax sama ndey dikke la. Mm-hmm. di sama xarit. bëgg ma lool. Mm-hmm. waaye euh, jàppale ma lool tamit. ndax xam nga lan mooy jàppale su nit nekkee ci loo xamante ne ni du noonu nga woo ko ndànk ne mag ah nangam ak nangam ak nangam kooku jàppale woo ko. dëgg la soo gisee nit ñu def ko dara wala ñu wax ko dara nga réagir réagir bu rafet. Mm-hmm. kooku jàppale woo ko. dëgg la jàppale nga ko. loolu moo tama koy sant. Mm-hmm. pourtant loolu muy def ci man. Mm-hmm. noonu la ma ko fàtture di defale mm-hmm. noonu la ma ko Ayda Ndiaye bàjjenu gox di defale noonu la ma ko Faat Ndoy di defale ak gàkku jaawara ak keneen ak keneen ak keneen. gàkku man su ma amee lu ma metti suñ ci waxtaanee day jooy. maa ngi koy soog a wax tey jii. suñ ci waxtaanee day jooy. nga xam ne ku nekk ñun ñu ànd maa ngi nuyu Awa njaay ñun ñi nga xam ne ñoo ànd. ba ca seeltaal. Mm-hmm. seeltaal yow boo ko romboon saaga ko mu war a ñoo fay ñu ne ma yaa xadi dawal seeltaal dina fay su ma ko woowee téléphone du fayu loolu du cër. dëgg kon loolu kon ñoom kenn amul seen fay. Mm-hmm. ñu ànd nag àndu nawle. Mm-hmm. ànd bu neex. ñuy foo di ree def ay ndey dikke nag ki suñu biir man yaari mooy sama ndey dikke madame Ndiaye mm-hmm. taalibe sëñ Fallou bi Mari Cissé mm-hmm. tamit ñëw fekk ñu ak rakkam mm-hmm. defar diggante bi moom dama koo tudde jéegu pousa koñ day ñaw rek yàqu dara te loolu aussi sant sama président sama côté secteur tamit maa ngi gërëm ñi ma ci àndal ndax a Diarra mooy sama vice présidente Kolle Diarra maa ngi koy nuyu bu baax di su ma nuyoo Kolle Diarra rek nuyu naa ñëpp ndax ñoom gàkku ñëpp tamit ci sama secteur la ñu nekk. Mm-hmm. ak may Maynatu Joobin. Mm-hmm. ñoo ñëpp tamit ma jiite leen ñu nangu ko. Mm-hmm. man tamit maa ngi leen di nuyu bu baax. ci 8 mars bi loo leen di ñaanal. waa mi 8 mars bi maa ngi leen di ñaanal gudd fan. amiin ak yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot. parce que wër wër. boo amee wér am gudd fan rek. di nga am di nga fekkee boo fekkee lépp rek. dëgg la rek baax na. kon maa ngi leen di ñaanal jàmm. di may ñaanal sama bopp. di ko ñaanal di leen ko ñaanal. Mhm. suñu groupe bi nag yal na ci yàlla teg loxo. amiin yal na ci yàlla teg loxo yal nañu yàlla jàppale. Mhm. ba ba gën ñoo dëgëral ba ñu nekkaat ci yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. parce que am na yu nekk ci suñu kanam nag. projet yi projet yoo xam ne. ñu ngi koy waaj a lu yàgg dara. incha allah te buñ ko defee diñ ci teew. incha allahu rabbi waaw waaw nopp sa jëkkër dañuy def yooyu yëpp dañuy conférence parce que dañ ne ñun nopp sa jëkkër waratuñoo woote ay tama ak ay sabar loolu moo taxoon ñu def conférence première édition dina amaat amaat amaat incha allah euh, beneen bi si topp tamit mooy nopp sa jëkkër dañuy social te kenn du ko xam dafaa ñu gis benn affaire wootande ci suñu biir waxtaane ko ci groupe bi dajale benn som jox ko kooku ne ko nag bu ko kenn yëg waa nopp sa jëkkër dañuy def loolu waaw waaw waaw koñ bu nekk dafa war a am groupe nopp sa jëkkër parce que boo bu ñu boo bokkee ci groupe nopp sa jëkkër yow li ngay njëkk a mooy xuloog sa jëkkër ba sa dëkkandoo yëg ko ah, buñ la àttee kay dañ naan kon kii yow kay no bokkoo groupe nopp sa jëkkër <laughs> parce que groupe nopp sa jëkkër man dama ci daan dalalaate su ma lay dalal damay def sa jëkkër direct waxtaan ak yow léegi góor moom su kontaanee buy wax danga koy xam bu meree buy wax danga koy xam léegi la taaka émission bi di ñëw ci yow doo def tout ba góorgóorlu ci sa jëkkër kon loolu moo ëmb mooy base groupe nop seen jëkkër may gërëm nag nday ba sama jeeg bi jabari keebaa ñing jëkkëram di sama góor sama càmmiñ sama xarit keebaa ñing ni jaay jaara bu so maa ngi lay nuyu di ko bégee mu bàyyi maag soxnaam si nday ba nag moom su ma yàlla bëggee yàlla na ma yàlla bàyyeeg moom mën na ma ci côté yu ne li ma mun a wax ak lu ma mën da wax na ma ci côté yu ne ba Poula Diéry maa ngi koy ñaan toogaayam bii yàlla bu jéeg toog palaasam man loolu laa koy ñaanal damaa jaboot nag waaye maa ngi ñaanal ñi ci sama ginnaaw ñëpp di ñaanal sama doom yi nga xam ne ñoo nekkal man mm-hmm. nga xamante ne ni ñoo jàpp ci combat bi ba ma mën a bëre ba daan parce que lii benn nit mënu ko ñaar nit mënu ñetti nit a koy def walla ñeent mais xale yi jàpp booleeg seen yar ak seeni teggin kenn mënu fee xam doom juma ma juróom ju ñëpp yaay la ñuy wax kon loolu tamit maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax di sant tamit sama famille mel ni samay mag ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu parce que samay mag ni ñu toll man sama kër yaay ak sama kër papa caat bi rek laa mag te pourtant li may mag li ma ciy gën a ndaw man lañu jox lépp kon loolu sant yàlla la di di nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp xadi tey ñu daal di ànd ak yow journée bi rien que pour 8 mars bi àndandoo ak yow marché ñëw ñu daal koy togg ci jàmm yàlla def ñu yàq ko ak ni ko clients yi doon jëndeek jaay bi euh, tey ji nag la fait ñu tànn la nga nekk jigéen boo xam ne danga brave ban yëg-yëg nga am ci ci journée bi nga xam ne passé nañ ko ak yow waaw kontaan trop ef mhm. ndax yow dangay doomu ginnaaw raay juddoo ginnaaw raay màggee fi mhm. fekk fi baax ba baax fekk la fi macha allah soo ma tànnee ci li tànn nga sa yaay ndax sa yaay jigéen ju mën góor la émission bi rek mënoon na koo def ndax mhm. sëykat la mhm. te ku muñ ci néegu sëyam la moo tax mën naa am lu ne ci sëy mhm. kon macha allah rafetoon na sa moom mu def émission bi kon boo ma ci tànnee dama lay kontaanaat di la delloowaat njukkal di la wax ne kontaante mënul paase lii la maam Njaay sama waxoon rek ne te nekk ci territoire ba yéeg ci avion mm-hmm. mooy fi ma jaar ba fii ma taxaw ndax ci mbaar laa nekkoon mm-hmm. buy taw muy seen mm-hmm. su ma ci jógee tey ba toog ci palaas ah, am na lu ci suñu borom teg na ci loxo lëg la kon côté boobu dama ciy sant yàlla bu baax santaat yàlla bu baax tamit ci émission bi ngeen ma may tey jii ñi xamul Khady di lay gis à travers l'écran bi tey lan nga leen di wax yow surtout simplicité ni nga mel waaw xadi rek yaa xadi rek ndax man mhm. yaa xadi mooy koo xam ne bu muy ñëw Dakar saag la indi mhm. waaye bu doon ñibbi tey camion attanu ko waa ma juddoo nag fi ma war a juddoo nekk sa tub buur seen ku ma Ndofeen mhm. man sama maama seede woon sëñ Tuubaa ba ki kenn ñemewul a seede bokk ci màkk pend borom jël Dakar nag kenn xamul kenn ndax dëkkub dox dajala waaye ñun buñ ñemee ba Tuubaa Refane ku nekk xam nga kii mooy kan. Mhm. tey jii may wax ak yow dëkk ba sama bàyyi ko moom. Mhm. kon sant yàlla. Mhm. ñu daal di gis tamit sa diggante ak say client ndax sànq rek gis nañ réaction bu rafet boo def le fait que sa client bëgg li amoo li mais da ko neexal ba mu lekk lool ci jàmm ak salaam. waaw loolu mooy jaay loolu mooy jaay jaay moom maafe la doon commande maafe bi jeex na dañuy naxanteeg moom ba jaay ko ceeb. mu lekk te du mer doo parce que ki lay jox xaalisam mu xolam warul tàng. Mhm. ki lay jox xaalisam. Mhm. kooku xolam warul tàng. Mhm. parce que ñun dañuy togg rek dem marché togg rek lañu am ñëw taaj. ñoom ñooy jóg romb jaaykat yu bëri ñëw ci yow. kon kooku waroo koo merloo. moo tax ñuy def tuuba suñuy client kontaan. waaw des fois mu neex des fois du neex. waa mais chaque jour rek na lay demee jaay la. jaay jaay la. jaay des day neex. Mhm. ba nga yaakaar ne dootul naqari. Mhm. des fois mu neex ba nga ne waa est-ce que man amul lu ma laal. su mhm. fekk du dara njaay la rek danaa la jaay soo ko mbappatul soo ko mbappatul doo xam. conséquences yi ci jaay. jaay da nga koy mbappat fexe ba xam jaay. jaay moom tey day neex suba mu naqari. te jaay dafa bëri ay secret. Mm-hmm. mën ngaa jaay desal sa te yor xaalis ba yaakaar ne dangaa jeexaat mm-hmm. mën ngaa jaay sam njaay ba mu jeex tàkk te doo doo te doo gis xaalis dëgg la moo tax njaay dafa bëri ay bagage mm-hmm. dafa bëri secret mu ngi noonu waaye ñu ngi ciy sant yàlla rek ndax li ñuy tàngal ñii ñaa ngi koy jënd tey lan ngay wax uh, say client samay client ak fu ñu mën a nekk rek may mm-hmm. kontaan ci ñoom mm-hmm. te wax ne peccum liir su neexee ndey jaa ci jàpp mm-hmm. ñoom samay client yi jënd ci man ñooy sama ndey parce que ñoo may jàppale li may def neex na leen ñuy jóge fu nekk di ñëw di ko jënd si walla ñu am programme sax commande des fois nga gis kuy tabax ne ma toggal ma suma kuule nga calculal ko ndugg mu jox la xaalis nga ndugg ba pare nga toog ko mu jox la xaalis boo xam ne sax danga naan kii ndax dafa dof mhm. des fois nga gis kuy safar mhm. woo la ne la damaa bëgg nga toogal ma mën a ceeb calculal nga defal ko bilan mhm. mu jox la nga dugg ba pare nga saxanaa safar ñëpp ko yow soo toogalee safar kay dangaa war a sant na ne sëñ Tuubaa ngay liggéeyal dëgg la mu pare bu la joxee xaalis da ngay tiit kon yooyu yëpp am na fi. am na fi sa ñoo xam ne dañoo dëkk individuel bu ñuy tudd dañuy ñëw wax la ndax di nga leen mën a toggal ma ne leen ak ah, ci place bi laa ko mën a toogee da dañuy d'accord ñu d'accord nga togg ko fi ñoom ñu ñëw jël si ko. ñoo mm-hmm. yëpp dañ ko fi def. Mm-hmm. Euh, mu mel ni góor ñi tamit ngay gën di jëflanteel ko jigéen ñi. waa fii nag góor ñi laa gën a jëflanteel ni jigéen ndax fii moom millier góor la. Mm-hmm. fii moom millier góor la ba fa dëgg yàlla soo xëyee moom yaa góor ñi ba ba ngay tëdd. Mm. tey euh, place bi ñaan nga yàlla mu évoluer lan mooy rêve Khady lan la bëgg. waa sama rêve nag. sama rêve luur na de. waaw wax ñu ko rek. <laughs> sama rêve moom. Eh. luur na. Eh, eh. mais yàlla na réalisé wu. waaw mais xam nga dag maa fekk fu ma neex tey man sama place bi mooy sama or. Hmm. mooy sama jamaa. moo ma def ni ma mel lu ma am moo ma ko may. Hmm. kon damay rêvé benn jour mu nekk place boo xam ne. Hmm. Euh, dañuy teg étage ci kaw. ndeysaan. maanaam mu nekk ci beneen niveau. loolu bokk na ci samay rêve. nga xam ne tey day am ay VIP fu ñuy lekkee. Mhm. ak sama classe bi yëpp bëgg naa eh, loolu. macha sama reef la. Uh-huh. yàlla na ko sunu borom def. amiin ana lan ngay tàggatoo. waa li may tàggatoo mooy maa ngi gërëm ñëpp. Uh-huh. di ñaanal ñëpp jàmm. amiin képp ku nekk jigéen. Uh-huh. di daan sa doole. na nga gëm sa bopp rek. te xam ne xëcc moom bu daggul rek dina dikk. dëgg la képp ku toog sa kër na nga jéem a def dara parce que jamono bi tollu na foo xam ne. ki def dara sax moom la ñu gën a jox confiance ni ko deful dara. Mhm. kon maa ngi lancé sama mbokki jigéen ñi ñëpp. Mhm. kenn ku ci nekk daal bu mu xeeb dara. Mhm. wax naa la ne jaay naa fonde. man jaay naa mu xam sa. lal naa taabal teg ci ay orange ak mbuusu sidéem juróom. di jaay bay jaay ndékki jaay añ bay jaay reer. macha allah man jaay rek laa xam. mënu maa def dara lu dul jaay. Mm-hmm. jaay rek laa xam. Mm-hmm. kon loolu maa ngi koy wax sama mbokki jigéen ñi ñëpp. Mm-hmm. na ku nekk dem jaay lu mu tuuti tuuti xam ne xëcc bu daggul dikk. dëgg la waaw di nuyuwaat ñëpp nag. di nuyuwaat sama borom kër rek. di ko sant. di ko waxaat ne ko lépp rek moom la. parce que fa xasalu ma daf maa bàyyi sama yoon rek. te bu ko neexoon fii ma yegg si yëpp du ma fi yegg si. te daf maa jàppale jàppale na ma ci zaahir. jàppale na ma ci baatin. jàppale na ma ci Zaire. jàppale na ma ci baatin. di nuyu nag waa union de la femme bu ginnaaw raay sud waaw. Mm-hmm. maire ne Sow nekk présidente bi. Mm-hmm. nekk jigéen ju mën góor doon jàmbaar lool nag. Mm-hmm. maanaam di jàppale jigéen ñi ginnaaw raay. nga xam ne tey jii fu fu jigéen ñi ginnaaw nekk rek merki Kine Sow teg na la loxo. te loolu sant yàlla ndax mu ngi bay waaram bu baax ci groupement yi. di jàppale jigéen ñi. tamit ajaratu ndew maar mhm. ñoo ngi koy nuyu baax di ko ziyaare di ñaan kaala gi yàgg ci boppam jërëjëf ñun tamit ñu ngi am contentement bu baax a baax léegi sa cameraman bi suñ sañoon sax nag euh, jànk bi ñëw sànni ci kàddu rek ndax ndax temps xadi naqari naa nekkal wala naqariwu la nekkal <laughs> <laughs> léegi xat dangay ñëw gaaw puus rek nga wax ñu rek ndax ndax xadi naqari naa nekkal ndax yuuxu beeg des fois mu humeur bi du ñëw <laughs> des fois humeur bi day changé ndax da leen di. waaw kaay leen tontu question ndax da ngeen daf leen a jàppe comme yaay parce que sànq sa biir wax maa ngi dégg nga naan ko kee naan ko yaay. Mm. xam nga nga ni sax duñu jaaj sa tur léegi wax leen ci moom ndax naqari naa nekkal kay. màgget ñëwal <laughs> mënuñoo wax mënuñoo wax mais gis nañ ni ñuy traité ni ñu koy traité xam nga xam nga caméra bi mhm. wax naa la ne kële étudiante la mhm. xam nga yooyu yëpp dañuy moytu caméra bi yooyu mhm. mais man ñoom dama leen a jàppe comme samay doom su digal waree ma digal la mm-hmm. su tere waree ma tere la mm-hmm. bu soow waree dama lay soow mm-hmm. bu waxtaan waree damay waxtaan ak yow dëgg la parce que dama leen a jàppee comme samay waa kër macha allah man noonu laay àndee ku ma yàlla boolee may remercier nag sa caméraman bu neex deret bi amaat baax lool amaar dafa baax ko ñaanal rek ku du fan macha allah bi yaram amiin na ngeen jël meer Eh, tamit yal na ngeen dem ba am tele bi gën a mag ci tele yi. waaw yal na mujjee seen loxo. allahumma amiin ci barke yonent bi. amiin amiin merci di kontaan bu baax nag. amiin nuyu suñu yaay yëpp. Uh-huh. suñu papa yi. Uh-huh. nuyu ñëpp ko lim nag da ngay juum. dëgg la waaye maa ngi nuyu ñëpp. Uh-huh. di nuyu nag sama jabar yi. ndey ma sa kër ga borom dimanche di ceeb ceeb yu neex yi. nuyu sama rakk ndey jaañ. yàq yaay baa baaba jaañ. ndeysaan maa jege. ku ma jege la sama yaay la. sa yaay la daf maa jege. maa bëgg ba amut ci man sago. macha allah. ndey umpalante wuñ dara. Mm-hmm. ma koy ñaanal rek. Mm-hmm. moo xam li mu bëgg moom ci xolam. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal. jërëjëf. nuyu yow tamit maa ngi lay ñaanal nga àgg ni yoon. amiin amiin. yàlla bu la dara fakkasal. allahumma amiin. yàlla na nga àgg ni yoon ci barke Serigne Salim. amiin amiin. maa la ko ñaanal ci xol bu sedd. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax 8 mars 8 mars spécial nday nekk jaaykat bu mag macha allah une battante koo xam ni jaayul kese mais dafay boole ay nit day boole ay askan day boole ay famille di boole ñëpp donc yoon la genre yi ñu leen di génne ci 8 mars bi daal leen di sargal kon moom lañ fi doon sargal mu nekk journée bu neex ñu passé ko ak moom mu toppatoo ñu nag macha allah di ko ñaanal fi mu fi nga xam ne fi la nekk di bay waaram yàlla na ko suñu boroom gën ko fulal fulal kaw kaw ba ku nekk daak ci jot donc d'ici là partagé bu ko defee ngeen mën a jot affaire yi à temps réel merci beaucoup.